ci xalaat mooy ku am sa xaalis daal boo ko bëggee jox sa borom kër am nga droit jox ko pour man loolaa ci am xalaat 270 millions non du dara ci taaliba Serigne Touba man jàpp naa ne taaliba Serigne Touba war naa mën a jox lu ëpp 250 millions pour saytu ko fan la jógee maanaam bu fekkente ne bii moo ko moom lew na ko daal am na droit jox ko waaw OFNAC nag moom ci réew mi lañ bokk dañuy am lu ñu doxal ci réew mi ah nañ doxal rek te teg ko ci yoon lépp rek waaw man loolaa ci amoon xalaat. non wax dëgg yàlla nag man li ma rafetlu daal mooy ku am sa xaalis mu leew la doomu ak nu mu mën doon toll war nga ko mën a jox sa borom kër loolu daal daal d'accord naa ci mbiru Cheikh Béthio bi ngeen wax ci xaalis soxnaam moo ko may xaalis mais ku ne am nga pele droit may xaalis wala yow boo yoree sa xaalis mën nga koo may sa borom kër parce que yaa ko liggéey mu leew la doomu te man jàpp naa ne xaalis bi xaalis bu mu liggéey la ndax bu du fekkoon ne xaalis boo xam seen ko génnee di ko maye ndax lu léwut kenn du ko wane nag ñoom ñoo taamu ah bu nit defee dara rek ñu nekk di wax di bëggal def def ko bës mais loolu jëlul bës quoi parce que xaalisam la moo ko moom am na droit may ko borom kër mayu ko jàmbur de borom jour ngay seetaan télé nekk ci scène xam nga leen di baatare lu ëpp loolu te kenn waxu ko kon a may borom këram man pour man li ma jàpp mbirum of nag man xam lu bari parce que sama jàngu tubaab soriwul mais nag yaakaar naa ñoom am na leneen lu ñu war a a lijjanti lu dul loolu may sa borom kër xaalis ñoom war yaakaar naa am nañ beneen liggéey bu gën a nekk rek bu gën a bu bu leen bu ñu war a gën a mën a def daal bu bokkut ak boobu quoi comme neex nga may sa borom kër xaalis am na ci droit waaw nañ seeti beneen liggéey nag ñoom waa nag moo gën ndax Cheikh li ñu koy waxal bari na quoi chaque jour ñu ngi koy waxaal te lu ci bëri dañ koy tooñ man yi may dégg ñu koy waxal yëpp moom du tont lu ne waxal nañ ko ko fi nag mais déggu ma ko moom mu mu fayu loolu nag ku baax rek ko koy def te taalibe sëñ Saaliw la ñun ay ay ay taalibe lañ quoi te képp ku nekk taalibe sëñ Saaliw rek dañ lay bëgg te nag nit ki buñ ko topp rek bëgg a yàq deram tax ñu koy waxal lu nekk doomu jàmbur la quoi te dafa am ay doom tamit yu nekk si yu nekk ci àdduna bi di dox xam nga di dem nekk ci gouvernement bi fu ñu nekk fa te ñooñu tamit ay responsable lañ war nañ leen a mën a jox cër quoi waaw nit nit nit bu nekkee boo yore sa famille nañ la bàyyi nga seere sa famille mais buñ la topp di la bu ndoxataal chaque jour parce que Cheikh Béthio kilifa la li mu doon def ko boppam sëñ Saliou woo ko ko def bu doon moom dong ak moom li mu am du ko am mais sëñ Saliou moo ko def te sëñ Saliou ñun mooy suñu yaakaar ñun ndaw ñi moom lañ yaakaar tey ak ëllëg yomal xëyam dañoo ñaan yàlla dajeeg sëñ saaliw te Cheikh Béthio bu boobaa dañuy ñaan fekk ko mu taxaw ak sëñ saaliw waaw nañ bàyyi jàmbur nag man de li ma gis mooy li loolu dara nekku ci maam ku am xaalisam yéene ko borom këram jox ko ko ah wax dëgg yàlla dara nekku ci te tamit ki mu koy joxe wax dëgg yàlla day liggéey sëñ Tuubaa amul jëlul xaalis di ko def ci poos moom lu ko jox ci liggéey sëñ Tuubaa bi la koy def ah ñun bokk ñun ñii de moom xam ne ñun moom man bu amoon na Serigne Touba am naa yéene carrément ci ko lépp li mu ko jox parce que man xam naa ne yàqu ko ci liggéey moom xam naa ko ci maanaam dañu a seetu xaalis beeg yooyu xaalis maanaam wuti utin ba yaa ngi moom mën naa ñaaw waaye nag lu ci mën a amit nag maanaam fa nga koy def bu rafetee rek loolu moom waxee Serigne Fallou woon ñun moom man moom du ma xool nit di amee xaalis mais li may xool mooy fa koy dugal na ko fa dugal waaye xaalis bu léewut moom léewut mais nag xaalis koo xam ne dafa am xaalisam liggéey ko mu leew ko mu yéene ko borom këram jox ko ko man yaakaar naa ne dara nekku man de bu doon may bu sama xaalis yéene naa ko Cheikh ba ci naa ko jox waaw wax de rafetlu naa man ku am xaalisam jox ko borom këram man rafetlu naa loolu ndax ma ci benn ko inconvénient wax dëgg yàlla mu mel ne mbirum Cheikh Béthio nga ñu laaj mbirum Cheikh Béthio moom boo ñu ci laajee ci digganteem ak soxnaam xaalis bu mu ko jox des na ci sawar a tontu ndax bu ñu xoolee ci yenente bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mooy ngën gi mindeef soxna Xadija am mi nga xam ne moo doonoon soxnaam moo doon yëkkati alalam di ko financé di ko jox kon ku nekk ñaan nga la yenente bi amoon nga di ko am gannaaw yenente bi soxnaam si nga xam ne moo gënoon ñëpp moom moo doon yëkkati di jox soxnaam kon bu soxna Cheikh Béthio demee alal joo xam ne jàpp nañ ne ñun moo ko liggéey mu moom ko mu lew ko doom mu jox ko ko loolee ñun dañ cee war a santaat yàlla bu baax ah te xam ne maanaam ku nekk loolu ngay ñaan ndax ñun de ñi nga xam ne moom lañ yor ñuy suñuy soxna yoragu ñuy million de li nga xam ne junni yi ñu yor rek ñu ngi koy nangoo bokk ak ñun kon dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ku nekk sañ nga loolu ngay ñaan sa soxna dem ba am lu mu lay jox nga kii ko mbirum seex bi daal ñoo ngi koy ñaanal bu baax di ko ñaanal jàmm. waaw OFNAC nag bu fekkente ne dafa am lu muy saytu li mu war a saytu man jàpp naa ne donte sama xam-xam bariwu ci waaye bari na ndax boo déggee lu jiitul xaalis bi ñu wax xaalisub seex Béthio bari na xaalis yoo xam ne njëkkoon nañ ko fee wax waaye ci niil dong la mujj ñu koy tudd damaa bëgg nag maanaam ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi ñu maandu ndax moom dafa jiitu ci lislaam waaw te ñoom it li ñu war a lijjanti bari na te lijjanti wuñ ko waaw nañ lijjanti leneen seex bi nag li mu yor moom da ciy liggéeyal sëriñ bi ci li ma jàpp waaw te loolu ñun li nga xam ne bari na xaalis yu ñu fi yoo xam ne bañ ko waxee ci noonu la mujj rek mujjul lijjanti ko of naag ak yooyu yëpp yu baree bari jaar na fi yoo xam ne ci defu ko woon nag gisuñu lii lañ mujj rek ko kon nañ bàyyi mbirum Cheikh bi noonu daal soxna si. xam naa man sama euh, question du ci sama kii du ci bari sama xalaat parce que euh, yaakaar naa bépp doomu aadama euh, nga nekk ak sa jëkkër war nga am ci moom yërmande pour man ni ma gisee li ma xaw a jaaxal nag mooy nombre xaalis bi waaye jëkkër. jabar yàgg naa dimbali jëkkëram ci man dama gisee sama wax du ci kii daal en tout cas pour man daal nañ xam mooy yoon rek ñu teg ko ci mais wax dëgg yàlla daal pour man ak sëñ bi war naa yelloo lépp loola daal ci man ni ma gisee ak activité am ak ni muy ak ni muy def ci dëkk bi man nag waa Fela waaye man sérieusement moom ni muy def moom kii naa ci daal waaw loolu daal jomb ko daal pour te dire jomb ko daal ci man li ma xalaat. wax dëgg yàlla nag ñoom war nañoo xool leeral aussi am na solo ci dëkk bi. waaw waaye nag wax dëgg yàlla kenn ku ne war ngaa mën a dimbali sa jëkkër waaye nag leeral tam ci la bokk parce que na tax réew mi a dox waaw loolu daal la am xalaat. waaw ñu ngi sant sëñ boobu nga tudd ñu ngi koy sant bu baax te di ko ziare tey di ko ñaanal fan nu gudd ak wér ah loolu ndaw soo si def nag jigéen ju baax yàgg naa def loolu jigéen ju baax yàgg naa yërëm jëkkëram dindi teraanga jox ko te surtout fi Cheikh Béthio di jëmale xaalis boobu. sëñ Bamba moom dafa amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am te loo ci def kanam la jëm Cheikh Béthio dara jomb ko waxuma la soxnaam soosu de mais nit sax mën na ko defal lu raw loolu ngir fa koy jugal waaw xaalis bi li muy bari bari bari buñ ko naw bu jëru ñu koy nawloo parce que Cheikh Béthio dara jomb ko loolu ko soxna si jox nit mën na koo jox sax lépp loolu ndax sëñ Bamba ba mu koy defal am na ko mën na ko kon loolu lu jara sant yàlla la ak kii ñun day wax dëgg yàlla leneen la ca des nag li comme li nga wax ni waa oof ñooñu seen liggéey la mais man de li ma ci xalaat sama xalaat bu bëriwut yaakaar naa ne seex bi moom dara jomb ko waaw ba tey yow mii sax boo yore ni milliard tey attan nga ko jox sa boroom kër waaw eh, soxna si loolee mu defal seex bee ca da ko dimbalee te yàlla tax ngir mu nekk ci gannaawam parce que war naa mën a defal seex bee ca la mu bëgg kon bu dindee xaalis bi jox ko dañ ko war a encourager sant ko ñaax ko pour bu ëllëgatee kat la moo gën mu koy jël di ko jox ab jàmbur jox ko jox ko borom këram borom këram wëlbatiku doxal ko ko ku tedd ki kooku loolu sant yàlla la bu baax waaw kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax